ay Minister lañ ak ay député motax ñu am fi doolé mais xamuñu woon ñooñu ñoy ñan kan ak kan la way sant yalla depuis bande sam jikko yi tambalé xex bi ba li tubab nan les masques tombent gaaya gi feñ dank dank loolu nekk di téwé ni mercredi 5 janvier 2022 bi ñu wessu le bureau assemblée nationale way membre vice président yeeg yeneen député yi composé bureau bobu ngir ñu càmbar proposition de loi bi war a criminaliser wàllum góor jigéen ba ñu yeggee ci boobee réunion lañu loi boobu noonu du jàll joxe nag ay lay yoo xamante ni amul bopp amul genn daan ci ñëw waaye yan député ñoo jël décision boobu noonu juróom-ñeent lañ daañu leen présenter benn par benn ngir dëkk ya leen faloon def leen ay député ñenn ñi sax ay maire lañ ñu xam ni kat ñii ñu tànnoon ngir ñu leen ca pencum ndaw réew ma représenter seen gox ay góor jigéen lañ. ndax wax ji duñ ko raay raayal kuy làq wala défendre góor jigéen góor jigéen nga mu am aussi yeneen député yoo xam ni bés bii ñu waroon caytu proposition de loi bi dañoo daw ñëwuñ te amaana buñ teewoon wone seen taxawaay loi bi dafay jàll ñooñu itam daañu ñëw ci seen cas sénégalais yi xam ñooy ñan ndax jamono giñ toll layam-layam yi amatul amatul lu ñu nëbb ak ku ñuy sutural ndax kuñ ne may la porox ndollu may la chance nga bañ c'est parce que yow yaa bëgg ko la weer ci penc mi moo tax daañu présenté député bu ne foo bàyyeekoo yaay kan ngir ña leen faloon xam ne ñii ci bàjjunu góor jigéen la ñu bokk comme que amuñ jom. léegi gannaaw lii lan moo ci des yaakaar naa ñu bari loolu moo leen ëlum jamono ji am na ñu ne na kilifa diine yi génn wax am na ñu ne itam na kilifa yi sax wàcc ci mbedd mi manifeste côté boobu noonu ñu liñ ciy wax mooy nañuy raisonnable tuuti ay mag yu jege téeméeraat kenn du leen wàcculoo ci mbedd mii di leen xeexloo ci dëkk boo xam ne 80 pour cent yëpp ay ndaw lañ loolu ñun ñii toll suñu digg doole ñoo koy lijjante góor jigéen yi ñun lenn lañu xam ne daal ànd nañ ci jàpp nañ ni période bii ñu toll gannaaw pression populaire bi ñoom kilifa diine yi seen kàddu maanaam ñu génn def déclaration ci tàng-tàng bii ñu nekk dina peser bu baax a baax li tax loolu. ndax ñi taxaw ni loi bi du jàll koo ci jël dafay wooye boppam ni taalibe la dafa jokk ci benn sëriñ donte ñun xam nañ ni gëmuñ kenn dañuy mbubboo tarixa yi ngir politique ay doomu iblis lañ ndax décision bi ñu jël mooy weddi nañ mboolem xalif généraux yi nga xamante nii yamuñ ci jox seen kàddu sàmm jikko yi dong mais dañoo signé ba noppi daal di bind ne dañoo war criminaliser wàllu ngóor jigéen ñoom bàjjenu góor jigéen yi taxaw défier leen ne leen seeni signature ak seeni bataaxal ñun taxañ nañ ko ndànk sànni fële léegi ban taxaway la ci kilifa yi war am dañu leen jox benn exemple maam da baax ci benn cas bu amoon jamonoom ak ban rôle ci joué woon ba jaamu seytaane yi delu ginnaaw pour wal leen doole bi chef religieux yi am ci genre situation yu ni mel. léegi ñu ñëw ci li xewoon assemblée nationale ba su mercredi 5 janvier 2022 expliqué woon nañ leen boo déposé proposition de loi du lu ñuy gaaw rek voté ko dafa am yoon. daa am benn bureau restreint bu nekk assemblée nationale boo xam ni ñooy njëkk a càmbar mbir yi bureau boobu nag newul ni député yëpp ñoo fa nekk président assemblée nationale vice président yi maanaam ñu topp ci moom secrétaire yi questeurs yi ak président groupe parlementaire yi ñoo fa am droit siéger donc nekk député sax taxul nga bokk ci bureau boobu noonu moo tax malheureusement suñu député yi porté woon proposition de loi bi ba déposé ko mënuñ ko woon teewee parce que bokkuñ ci bureau boobu bureau boobu nag ñoo ngi tollu ci 19 membres fukki membre ak juróom bépp proposition de loi bu dugg assemblée nationale ci ñoom lay njëkk a jaar buñ ko validé nag ba noppi la ñuy doorowoo yeneen téeméeri député yi ñu daldi tànn bés bi ñu waree dem plénière ku ne défendre sa position député yépp teew laataan ñuy passé ci vote bi bés boobu noonu ñun askan wi sax bu ñu neexee sax teewe ko jël suñu feuille stylo ngir xool kan ak kan moo ànd ci daganal mbaa daan góor jigéen yi. Lagi 19 membres bureau assemblée nationale bobu nonu ñan la mustapha Niass Abdou mbaw Yata Sow Cheikh Tidiane Gadio Aïssatou Sow Diawara Abdoulaye Makhtar Diop Ndeye Cissé Ali Lo Yaya Mané Albis Nicolas Ndiaye Mohamed Khoureychi Niass ndey Fatou Diouf Sira Ndiaye Aminata Gayi, Mamadou Diaw Daouda Dia awo Niang

ñoom fukki député Benno Bokk Yaakaar rek lu teg kenn du xam li xew waaye Sénégal la ñu nekk koo ëpp li mbokk mënoo koo jëw moo tax dañuy ñëw ci lan moo xewoon bés boobu noonu ku nekk lan nga defoon. nee naa leen bés biñ ko waree woon càmbar loi bi ñu bari teewuñ xamuñ ndax dañoo daw res wala dañoo amoon ngànt en tout cas juróom-ñeenti ci ñoom bureau boobu noonu ñu leen limal teewuñ kenn ki mooy Yeta Sow Abdoulaye Makhtar Diop. Yaya Mané Albis Nicolas Ndiaye Mohamed Khoureychi Niass Ndeye Fatou Diouf Aminata Gueye Mamadou Diaw Awa Niang ñii ñu leen limal ñëwuñ te amaana bu ñu teewoon ne loi bi dafay jàll par force ni kon duñ ko rejeté ndax ñoo fay doon majoritaire mais problème bi pour ñu bari ci député yi rawatina ñi bokk Benno Bokk Yaakaar ak loi bi mooy dangay ngay choisir entre li Macky Sall bëgg manam góor jigéen yi amuñ benn problème ak gouvernement bi terewuñ leen ñu nek ci jamm position bi le gouvernement wu Macky Sall am ci biiru borom ñaari tur yi ba dem diko wax wa bitim rew xam nga gannaaw ba yenn député Benno Bokk yaakar yi rejeter proposition de loi bi bon nopi liñ ko layelé moy Macky Sall position am dafa leer ci biiru góor jigéen yi manam andu ci alors que ñepp xam nañ ni waxuñ dëgg Macky Sall ki fi ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall ak yeneen délégation sénégalaise mais nous avons des homosexuels chez nous. ça veut dire qu'aujourd'hui les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue la possibilité de s'exprimer la possibilité de faire campagne par exemple. ils sont libres. ils sont libres. ils sont libres de le faire. la loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui, de par leur publicité, s'assimile à un outrage public à la pudeur. Au demeurant, le Sénégal est un pays tolérant. Le Sénégal est un pays tolérant. Le Sénégal est un pays tolérant. Que la loi sénégalaise n'interdit pas en tant que telle l'homosexualité. La loi ne parle pas d'homosexualité. Ce qui est interdit et réprimé, c'est les actes contre nature. Et actes contre nature commis en public. Parce que si ces actes sont commis en public,

amana sax andu ci mbiru ngor jigen mais baña voté lo xamanteni neexul Macky Sall wala dem andak Macky Sall peuple bi mere leen motax ñu wut ngant dañu daw seen responsabilité occasion lo aussi pour jaajeufal député Beno Bok yaakaar yo xamni bo waxi yalla taxawé ak waxi Macky Sall jëm ci ngor jigen dañu dem top leen seen borom sant ëllëg lu xew ñu dess ak suñu borom muy député Aline Soare Abdoulaye Bilane Aminata Diaw Ali Yamandaw Fanta Sall ak Yaya Sow ñoom ay député benn Bokk Yaakaar lañ mais ba Macky sàll taxawee waxi yàlla taxaw dañoo dem topp ndigalu suñu borom te wéetoog moom ëllëg lu mënti xew baax na donc ñun du ñu jël député benn Bokk Yaakaar yépp ne ñoom ñëpp a yam déedéet am na ci ñoo xamante nii dañoo taxaw jël seeni responsabilité wax seen position mu leer naññi donc bu mercredi 5 janvier 2022 di jour bi ñu waroon xool ndax loi bi wara a criminaliser wàllum góor jigéen dafa jallam déet 10 députés fukki ndaw rewmi mi dong ñoo fa teewoon muy président assemblée nationale Moustapha Niass Abdou Mbaw Cheikh Tidiane Gadio Aissatou Sow Diawara Ndeye Lucie Cissé Ali Lo Sira Ndiaye Daouda Dia Serigne Cheikh Mbacké Dolly ak Aymérou Ñing ñi nak ñoo waroon décider càmbar proposition de loi bi nga xamante nii moo waroon régler lu baree bari ci mbir góor jigéen ci Sénégal waaye lan moo xew juróom ci ñoom tàmbalee ko ci Moustapha Niass mi nga xamante ni amatul naatable ni kenn la ci bàjjenu góor jigéen yi ci Sénégal loolu na ko ñëpp xam defoon nañ ci benn vidéo spéciale ne leen dafa tënk boppam ci benn agenda PGA boo xamante nii dañ ko sant moom ak yeneen député ngir ñu daganal góor jigéen ci seeni réew donc lii naka waa Kaolack waa Kër Madiabel xam leer naññi donc moom ak Abdou Mbow mi nga xam ni itam ci programme góor jigéen boobu la bokk muy PGA yéen waa Thiès Est xam leen ni bu ngeen ko fale ci élection locale yi di ñëw dellu falaat ko député ab bàjjenu góor jigéen international ngeen di fal moom Kirikou Cheikh Tidiane Gadio moom itam ki yàgg woote panafricanisme ak i valeur ci bàjjenu góor jigéen yi moom aussi la bokk ku ñàkk jomm ay Aïssatou Sow Diawara mi nga xam ni moom itam mooy meeru Golf Sud lii na ko waa Guédiawaye Golf Sud xam seen député maire muy Aïssatou Sow Diawara ci bàjjenu góor jigéen yi la bokk également. Ndeye Lucie Cissé yéen waa Dakar yi ko faloon député ngir mu teewal leen assemblée nationale xam leen ni itam kenn la ci bàjjenu góor jigéen yi. Ali Lo yéen waa Taïba Ndiaye bés ni ki tey xam leen ni seen député maire itam mu ngi ci biir kuréel gi ëmb bàjjenu góor jigéen yi kenn la ci ñoom. Sira Ndiaye yéen waa Mbour yéen a ko faloon député ngir mu teewal leen assemblée nationale waaye xam leen ni moom aussi ci bàjjenu borom ñaari tur yi moo xam góor jigéen mbaa lesbienne ak yeneen xeetu mbon yu ni mel la bokk. Daouda Dia di député département bu Kanel nekk région bu maatam bàjjen la itam ci góor jigéen yi. de même que ay meeru ñing moom itam bàjjen la ci góor jigéen yi donc yéen waa Mérina daqaar xam leen ni seen maire ki ngeen faloon maire ba noppi def ko député ngir mu représenté leen teewal seen dëkk ci yii la nekk bàjjenu góor jigéen yi la. ñi ñu leen limal nag li tax ñu dippee leen bàjjenu góor jigéen yi parce que ba su mercredi 5 janvier 2022 bi ñu waroon càmbar proposition de loi ngir criminaliser wàllum góor jigéen ci Sénégal ñoom ñoo taxaw temm ne loi bi du jàll ñoom ñoo taxaw ne góor jigéen kenn du ko teg ay daan yu mën a yegg ba fukki at ci biir réew mi ñii ñoo voté loolu. mennam député Serigne Cheikh Mbacke Dolly yàlla ko yàlla fay moo fa newoon di leen waar di leen fàttali ay aayal xuraan ci li suñu borom wax ci ngóor jigéen. waye dafa fatte won ni ñi muy waxal ay talib iblis lañ ñu ñak jom lañ li wolof na rasu amuñu ko tok iman newul ci ñom khalis jar na len sax ñu jaay seen bop jaay seen njabot ñi ñu rejeter proposition de loi bi kon na ko sénégalais ñi nga xamni ñoo len fal ngir ñuy wëy ci suñu bëgg-bëgg dañu wan ni len leen wuñu seen kilifa diiné ngeen xamanteni ni wax ngeen ni signé nañ pétition yi ñun waxi Macky Sall mi nga xamni nak moy premier bàjjenu góor jigéen yi ci Sénégal ndax bu ko neexon li yépp do am ñom nenañ ci liñuy déglu kon nañu leen rañé ndax waratu ñu occuper benn ndombal tank bu ñuy falé ci biir réew mi ñi ku leen falati xamal ni yow ci ñi jappalé goor jigéen yi nga bok nañu leen rañé ngir ëlëk kenn bañ leen rendre hommage ci réew mi ndax Sénégal tam nañ loolu jël rek ku ci melni Moustapha Niass sotu Sow Diawara ay mairie ñing Ali Lo ak Cheikh Tidiane Gadio ay magum jëm yu judd ci gellem namp ci mbam ño xamni ni lañu gëna ñu ke liñ jot a def ci kaw suuf heure bi waru leen fekk ñuy gëna ragal yalla te xamni bëss nga dootu ñu sétane poson yu mel ni ñu leen fi rendre hommage nan ay homme d'état lañu won ak yu ñu mel ndax jëm yi gëna yees ci histoire politique bu Sénégal ñi ci lañ bok nak lan mo ci des comme ko kenn jital ay doomi adama bo nopi di leen faqatal ànd sàmm yi dina def déclaration leer lan mo nar doon prochaine étape yi ndax plan yi bari na mais pression bi da fay woy te période bi ni ñu tollu dañuy and ak effectivement ci ñuy wax naan suñu kilifa diine yi ñu jàppale ñu ci pression bobu nonu lolu ñaan la ndax ci yooyu ñu tënku tamit dañu yare ci anam gi nga wara waxe kilifa lan mo tax pression ñom suñu kilifa diine yi am solo jamono ji ñu tollu dañ leen di rek jox ben exemple dem si yalla Abdou Latif gay mi créé ONG Jamra di kenn ci jàmbaar jëm ci wàllum engagement citoyen ak sàmm valeur bi mu tàmbalee jàmbaarluk franc yi bañ commencé di ko sonal ba yóbbu ko ci yoon ngir tëjlu ko dañoo dem yëgal ko suñu maam da baax sëñ bi daal di bàyyi la mu doon def lépp xaar ba waa Jamra doon def déclaration mu dem fekk leen fa jël kàddu jàmbaarluk autorités yi fi ne woon nañ ci teewlu témoignage Mame Makhtar Gueye mi nga xam ne fekkee woon na loolee lépp ci émission Déclic. waaye dañ jékki-jékki rek ne. amna cortège buy ñëw benn kilifa diine ñu ne kooku mu war a doon oto bi gaare ñu gis ku sonn ñu téye ko ci poxotaan yi muy yëg escalier muy sëñ Abdoulaye Sy Dabakh eh waaye dafa ñëw de jël micro bi ne sama toogaay du yàgg ndax sama yaram neexul Jean Collin lay waxal Jean Collin c'était le tout puissant c'était le ministre de l'intérieur di tubaab mm-hmm. et qui dirigeait tout le pays mm-hmm. waaw <laughs> parce que euh, en réalité <laughs> c'était le secrétaire général de la présidence waaye moo doon réglé yëpp xale bii ngeen bëgg fitnal

déclaration suñuy kilifa diine jëm ci jëf ji bàjjenu góor jigéen yi def dina joxaat combat bi beneen dayoo li ci des nag ñun ñoo koy defal suñu bopp yàgg nañ ko wax Sénégal faaw ñuy bàyyi di délégué ay combat maanaam lu xew ñu ne ana diw woo leen diw na ci diw wax mais ñun ñi nga xamante ni lépp suñu kaw lay dal lu ci suñu taxawaay suñuy combat nañ koy régler suñu bopp ñun de en tout lii ñu nekk di def nii yëpp xaaruñu ànd sàmm ji koy wooñu ne ñu ñëw leen ci xeex bi déedéet dañoo xam ne lii ñu nekk di def suñu yëf la ñu daldi ci tax rip ba boo xamul da ngay yaakaar ne ñun dañoo bokk ci ñu créé ànd sàmm ji koy yi alors que bañ koy créé ñun fekkewuñ ko bërki démb lañ ciy soog a nekk membre officiel donc combat bi ku ne ak ca la nga yëngu xoolal lu ci mën a participer te bañ ci xaar kenn te xam ni suñu njariñ la ak ëllëg suñu njariñu doom kon tension bi tey loolu la woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf